bon salaamaaleykum maaleykum salaam bonjour bonsoir ça dépend de leur euh, bi ngeen di xool fii bonjour je sais pas je me présente c'est Boss Beat Khatkhoul tey damay essayer expliquer l'utilisation de Fruity Loops pour programmer un instrumental bon dance club house je sais qu'est-ce que c'est bon du fait que je reçois beaucoup de messages sur Facebook ñu may laaj lan nan nañu programmer instrument wala boss bon dama bëgg programmer nii laa war a def lii wala j'ai ces genre euh, j'ai ces genre de problème là sur Fruity Loops yooyu noonu bon vu que j'ai pas de temps mon emploi temps ne me le permet pas pour may mën a expliquer à chaque fois euh, ku nekk inbox di expliquer wala bon voilà quoi j'ai maintenant bon lu ma lu ma décidé mooy je vais faire des tutoriels wolof. pour expliquer lan ak lan ak lan bon si vous comprenez pas un truc wala si vous voulez que je traite un sujet bien déterminé vous pouvez commenter ou bien m'envoyer au fait par mail wala inbox bon sur Facebook de, de toute façon je réponds toujours à mes messages problème nga may fay si je vois que ni c'est un peu nécessaire bon lu ndaw la je vais vous répondre par message comme ça nga expliquer la sinon je si je trouve que c'est beaucoup plus pour que nit ñu bëri gën koo comprendre là aussi je le fais bon pour démarrer au fait on va aller un peu très vite parce que sur YouTube bon c'est un peu chiant euh, euh, kii bu guddee euh, comment dirais-je vidéo bi bon maintenant su ma bee Fruity Loops lu may njëkk a tiim nii mooy lu ñuy wax séquenceur séquenceur yi moom laay astafurlah bon dama veillé <laughs> instant yi ñu ngi fajar nelaw moom ba léegi bon je perds un peu la tête voilà pour programmer son. pour programme instrumental au lieu que j'explique au fait détail par détail Fruity Loops euh, li ci kaw nii mooy moom nañuy wax euh, comment dirais-je le panneau de contrôle euh, moom moo am bouton play yi pour yokk tempo yeeg rëng-rëng pour génn ci yenn génn yenn instruments yeeg yooyu noonu bon je crois que c'est pas tellement intéressant au fur et à mesure de toute façon suñu programme yi bit bi lépp li nga xamante ni soxla noonu ko wala ñu ngi koy utiliser on va essayer d'expliquer pour dem directement par exemple pour tëgg bit bitu dance lu may njëkk dem mooy par exemple 55 j'ai la j'ai ça par défaut ah publicité la génneel j'ai pas chargé au fait euh, benn sample wala affaire yooyu noonu ci ci browser ma am navigateur bi je mets first step par exemple je mets first step quand je mets play bon ça sonne ça bon ça me permet en premier lieu de marquer au le temps Euh, le temps mun naa ñëw fii tempo bi wàññi temps bi ici voilà yokk affaire yooyu mais souvent bi tuddeen si les gens sont sur 120 diggante 120 140 145 130 bon moi je vais rester sur 130 pour être un peu basique pour nit ñi mën a comprendre mu gën a facile à comprendre ok kick bi nii lay def <coughs> bon su ma joué kick bi. la paterne lu mu lu mu proposé boo ne seetloo dafa am euh, quatre cases je sais pas noir ou bleu de toute façon j'ai des problèmes avec les couleurs je sais pas ça c'est noir je crois euh, ak rouge noir rouge quatre noir quatre yu rouge quatre yu yooyu noonu noonu c'est-à-dire ça marque au benn bu nekk au fait ça montre un temps li nga xam xamante moom la mu propose nii par défaut mooy comprendre li ngay déggee kick bi un deux trois quatre ça fait une mesure mesure bu nekk kick bu nekk mi ngi joué ci benn temps donc ce qui veut dire que on, on est en train de faire un instrumental a quatre temps bon euh, nii su ma jógee fii kick bi damay def clap c'est-à-dire caisse claire yi lay joué bon caisse claire je joue ça bon je fais comme ça là aussi je fais comme ça ça fait ça donne ça maintenant pour contrer le son je vais utiliser les hats bon déjà si vous rappeur mën nga commencer rap voilà vous avez besoin que de la batterie ça fait ok one two three ten pam pam pararam pam pam pam am maa la gën a dee maa la gën a gën a seey xaw ma lan lan comme font tous les jeunes bon hmm, pour ma dogal benn instrument je vais je vais aller vers channel ici euh, je clique sur channel bon mu ubbil ma liste bi je add one je par exemple sur euh, Nexus Nexus au boo ko ci Fruit Loops si c'est c'est un instrument virtuel bi nga xamante ni dama ko installé pour Fruit Loops gis ko parce que tamit euh, contrairement yeneen séquenceurs yu bëri euh, Fruit Loops au fait chance mooy mun nga jël beneen au fait beneen kii ni ngi koy waxee ti sax benn instrument virtuel vous installez ça dans votre machine dans Fruit Loops et mu gis ko mu considéré comme un élément de Fruit Loops bon pour démarrer Euh, je sais pas bon je fais double clic sur l'instrument que je veux sélectionner pour que mu charge ko ok euh, là j'utilise juste un instrument par défaut sinon je le pas exhibi je crois si je me rappelle bien c'est un instrument bu neex la ci dance je crois bien j'ai mauvaise mémoire en tout cas bon je ferme j'ai choisi l'instrument donc je ferme Je clique. Oui, c'est bon. Bon, ce que je fais, au fait, euh, là, je mets clic piano roll. Pour mu permettre, je vais piano pour me permettre, au fait, euh, me permettre, moi qui nous arrêter tech instrument. Instrument, je m'en là. Maintenant, ce que je vais je vais faire simple pour me donner un après. Je vais jouer une gamme, je, vais sur la gamme de Do. parce que mooy gamme bu gën a simple gamme yi nga xamante ni au fait amul benn note diesel ni bémolisé ni truc truc truc truc c' toutes les notes blanches mooy composé gamme de do ce qui veut dire que bu ñuy composé instrumental toutes les notes qu'on va jouer touche blanche lay nekk pour un clav pour si clavier professionnel musique ça fait là j'ai joué do ré mi fa sol la si do bon loolu mooy constituer benn octave hmm? bon su ma cliquer boo leen su ma cliquer do da ngeen di gis muy rouge parce que là j'ai cliqué sur dos mi tu vois E bi mooy activé wu. pourquoi moom muy bind par exemple do bi su ma cliqué C bi mooy kii mooy activé wu en fait parce que notation en fait Fruity Loops notation anglo-saxonne la les anglais au fait euh, seen gamme je crois de kii euh, laa la commencé donc laa ñoom laa bi ñuy bind A donc A mooy laa une fois après si si ça devient B. si après do moo ci do ça devient c ainsi de suite ré d ainsi de suite mi mu jox la e fa mu jox la f sol mu jox la g anglo-saxon la mais bon vous allez vous habituer à ça facilement je crois je pense bien si vous êtes intelligent comme moi <laughs> je blague bon hmm. do bi dama koy jouer euh, bon, sur une mesure voilà. Uh -huh. Ok. Là, j'ai joué une seule Do. Bon, je suis la gamme de Do. Hein. Ok. Là, je... pour que vous me permettez mon monocone, il faut que je boucle ça. Bon, je reviens sur mon piano roll. Bon, je vais voir les kat yi laa soxla bon là je joue do et sol bon là ça sonne bien mais c'est un peu daw euh, après day mujjee soof euh, ñaari note kese day mujjee son yi ngeen di gis tamit le plus souvent euh, son dance yu bëri quatre notes ni ñuy joué ah très simple parce que permet au fait xaw ma nit nu mu demee noonu mais c' est très simple bu nekkee quatre temps ñu joué quatre notes affaire yooyu noonu c' est très simple pour mu parce que moo tax booy déglu à chaque fois son dance tu as de déjà vu que ni mosuma ko gis quoi bon c' est des très simples à assimiler dans le cerveau ça fait comme Bon, la j'ai jou très simple. J'ai joué Do, Sol, La et Fa. Comme je vous avais dit, Do mooy kii bi nu ngi koy waxee euh, mooy gamme bi. Bon, voye voyez, Sol, j'ai le bind, G5, A5 comme La, Fa e F5. Maintenant, au lieu que je joue seulement cette salle, ligne, au je, joue, je vais jouer des accords au par exemple mun naa bàyyi doo bi kese mais doo bi bon c'est morose voilà quoi c'est un peu fat quoi au lieu que je joue je vais faire ça vous voyez plus consistant parce que ça la gamme de do safurla oh, c'est l'accord de do bon accord majeur do majeur hein? ça fait comme bon day gën a am day gën a am xumbute xumbute sol aussi je fais sol majeur sol aussi je fais sol majeur là je joue la mineur parce que bu dee gamme de do la mineur lay nekk oh mineur dafa neex nag waaye j'ai j'ai l'habitude dire que mineur c'est les c'est les notes un peu bon et je Fa, Fa majeur. Qu'est-ce que ça donne? Je sais pas si vous l'avez remarqué mais moi j'ai tout de suite remarqué day sonné Let It Beatles. Let It Be, Let It Be. En fait Dun, dun, dun, dun, Let euh, je chante très mal, vous allez m'excuser. Maintenant, ce que je fais, au fait, je renverse au fait les notes qui sont en haut. Euh, je mets comme Je fais contrôle et flèche d'en bas sur mon clavier d'ordinateur. Ça me donne ça. fait lox ma koy def mooy pour nor yi jegante la bon par exemple j'ai joué ça maintenant je vais aller directement sur ma basse fréquence Yo, oh, bon voilà ça c'est bien euh, maintenant je vais aller sur la basse fréquence euh, j'ai fait clic 3 ici je mets clone voilà Euh, quand je clone ça, je vais avoir la même chose pratiquement. Si, je vais avoir la même chose. Maintenant, je choisis au fait une basse fréquence. Là, je vais aller sur basse. Je fais basse. Euh, dance basse. Je vais Bon. Vu que j'étais sur la gamme de Do. Hmm, tamit euh, je utiliser au fait le même not yu mu utiliser woon sànq bon les même fondamentales je vais dire ah note mooy note bi nga xamante ni mooy bon moo am note nu ngi koy waxee pour lu gën a simple turu gamme bi par exemple quand je parle quand je dis do majeur fondamental parce que do majeur mi ngi constitué do mi c'est do mi voilà et sol. ñett not yooyu ñoo constitué accordu do majeur bon su ma waxee fondamental bi mooy do benn note kese do kese c'est ça en fait waaye basse j'ai pas besoin de jouer l'accord ça ça pas voilà bon basse yi am na ñoo xam peut-être dinañ wax pourquoi collé wu ko fële c'est parce que dama dama am envie offert bi. bon pour mu danser parce que passe au fait mooy fecc lu nit quoi euh, il faut que muy contrer mooy tax ngay mel ni yëngal sa bopp di mel ni golo euh, noonu fecc dance. vous sol la donc je vais faire sol ok et ça ça va faire. voyez Sol, je crois, je vais jouer après là. Voyez. Pré Fa. basse basse bi instant volume la fort euh. bon carrément léegi nii mën naa ne pratiquement am nga bitu dance on yow one two three four five six seven pam pararam pararam pam pam tan tan tan tan pararam tan tan tan tan léegi leneen affaire yu may ajouté yëpp ay kalaj-kalaj la mais lii mooy base bi bon kalaj-kalaj yi mën naa jouer comme lan par exemple pour kalaj-kalaj euh, je sais pas je vais faire euh, je sais pas euh, qu'est-ce que je dois jouer comme clic-clac euh, bon je vais faire clic droit je vais clowner encore <coughs> je vais clowner Euh, bon là euh, je sais pas j'utilise par exemple Dance Lead non non non single layer leads c'est mieux je crois parce que dama juste après damay utiliser souris bi di mel di ciy fort rek pour wan leen et j'ai j'ai pas continué. donc je fais play mun naa jouer sama clavier sinon aussi je ne sais pas je vais jouer avec la souris pour pour ñëpp nekk au même niveau même niveau parce que am na ñi nga xam ne peut-être mënuñu clavier. Euh... Bon, je vais faire, euh, je sais pas. Euh... Du Do. sais pas, moi. Bon, je vais essayer juste d'improviser quelques trucs pour voir. Et je vais utiliser, le malin, je vais utiliser continuer fii defaat nii jaay rek non non non waaye là je suis sur sol par exemple la dièse la joué léegi xool la dièse bu ñëwee bu ñëwee ba foofu da ngeen sentir ni en fait y a une note qui dérange. parce que la dièse en fait fausse la mooy li ma waxoon au début en fait note blanche kese ni ñu joué parce que gamme de do a nekk voilà sol donc. si je respecte au la gamme parce que instant yii nii nu may tegee note yi je suis en train d' improviser au fait ci note yu may teg mais juste que je respecte au la gamme waaye. Euh, je peux faire ça autant de fois que je veux hein. Par exemple, je, je connais ici. Il faut aussi que je respecte les temps. Ouais. Euh, troisième note, c'est quoi Je vais jouer là. Par exemple, avec le là, je vais jouer comme ça. Là. Oh, mais c'est chiant ça. bon ça c'est une fausse note waaye ici au fait E bi E6 bi j'ai fait exprès joué ko nii pour mu changer au fait parce que bu mu mënoon ouais. Dernière note que j'ai joué, Do, Ré, Mi. Qu'est-ce que j'avais joué Fa, ok. Fa, je joue comme ça. Deuxième note je joue là. Oh, c'est chiant ça. Là. iddu <coughs> mën naa arrêté nii comme mën naa ko ne fii tam di improviser je sais pas ah, I pose not. Heureusement, dama bës <laughs> telecom che ha il sede bon ça aussi j'ai pas ajouté pour mu def fin yi muy def ay roulement souvent les gens s'aiment bien je sais pas pourquoi moi aussi j'aime bien pam, pam, bon euh, je ferme ça déjà mooy ko la wax léegi lii nu yokk lépp ay karaj-karaj la rek juste pour embellir le son mais daanaka pare na je crois bien bon par exemple essayer ci rab benn couplet <laughs> non pas couplet je vais essayer d'improviser je vais n'importe quoi oh yeah yow un benn ñaar ñett ñeent ñeent juróom juróom benn xawma lu ci topp maa foog a bi ci gën a nekk dana nekk pang ba ne fag dana gees dana gaa is what dance dance dance fuck that bitch shit parararan tanaran tan tan tan bum bum bum bum voilà c'est fini merci sans transition je vous dis bye bye Hard Roll for Life merci euh, merci je vous ai torturé quelques minutes <laughs> J'espère en tout cas que vous avez compris et vous avez aimé ce tutoriel. Je vais... Bon, si vous avez des suggestions, parce que je sais que j'ai foutu la merde et j'ai fait beaucoup de bêtises. Je suis vraiment pas sérieux. Euh, vous pouvez me faire vos suggestions hein, sur si vous voulez. Allez, merci, ciao, à plus.